la réalité dans cette centre que ni xam nañ ni tey ñi fi daan ñëw di voter ñëpp la majeure partie de cette quartier ils votaient pour le président Idriss Seck mais tey manifesté nañ ko seen mer ak liñ ko dencaloon li mu leen tooñee que ni jàpp na ni cette quartier la kenn waru maram nekk nawleem te fii la juddoo fii la ay waajuram nekkoon fii la suñuy waajur nekkoon ñu maasee bokk jamono donte moo ñu mag di ànd ak suñuy mag mais taxul taxul mu jox ñu suñu cër. parce que li tax joxul kenn cër depuis bi mu amee ndombal tànk ba léegi moi je dis que ni c' est une honte quand on dit que ni Idrissa Seck fii pendant vingt ans moo koy gagné un euh, Habib Kane qui vient de naître dëkk ci à à deux pas de cette centre di taxaw fii tabaski Korité pour man Idrissa Seck kenn waru ko njëkk fii Korité wala tabaski gaari fi camion soble pombi dem may ko jigéen ñi fii wote Idy Seck kenn waru koo njëkk ci ASC bi ñu am muy jaloore Idy Seck n'a rien fait pour se casser pour lan ndax dañ doon am kersa di ko jàppale ndax jàppoon nañ dañ koy noot ay frère am nekk fi ak ay sërëm ñu tayee ci ndax ñooñu jeex mbokk mais nag nit ki doo ko topp di ko topp di ko topp ba mënuloo amal njëriñ da koy bàyyi moom ci boppam ba mu demee ci opposition bi dem ba xam ne mënul ko dara daf leen a bàyyi dem topp Macky Sall ñu ñun am na droit bàyyi ko lijjanti lañ jël waxoon jëlal ko suñu bopp defal suñu bopp. waa ko bàyyi daal ni nga mais mais c' est clair. Idriss Seck kenn ni ce qu'il a fait aujourd'hui bu daan def Idriss Seck bu daan dugg pour voter boo xefee day sànni quarante bi ci biir génn parce que dafa doon yàkkamti génn fekk fay askanu kees mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il arrive mu taxaw bi bëgg a wax xale yi ne ko doo wax mu daw dugg ci biir pour wax buñ ko téyewuloon mu daanu ah mais je dis que nii am na moom loolu am na lum ko wan am na lu ko wan je dis que nit ak aujourd'hui cette jeunesse cette ces dames là qui sont là cette jeunesse d'accord nañu à l'humanité bi c'est pas la personne de Idrissa Seck qui doit les diriger. kon daal dal na ci li nga gis nii. non xam nga bu dee dal mu xel mu dal moom weesu nañ ko mais xam nga fal dafa nekk suñu borom yàllaay fal. jàmm pexem bu yàlla ak la muy mais ñun ñëpp bu fekkee suñu borom di li suñuy pexe ak xol yi ni ñu àndee ak xel yi parce que changement boobu nekk dëgg ci ñun xam ngeen Idrissa Seck balaa quatre heures du fanaan quatre heures du bokk ci nit ñi démarré non violence bi ça n'a pas de sens parce que keesuwaay yi ñoo décidé à l'humanité kenn ne Idrissa Seck dafa dafa war a jóge accompagné nañ ko accompagné te ko accompagné te ko une troisième fois léegi qu'est-ce qu'il ñu toog il nous amène d'autres têtes comme la personne de Yankoba Diattara bi nga xamante ne tey ëmpul kenn li mu def ci dëkk bi ëmpul kenn li mu def sur le foncier de Thiès le lotissement de la Mag de Thiès le lotissement de la zone industrielle quand les gens disent que ni loo bi loo EC parcelle 18 est-ce que effectivement jabaram la ko jox mais bi mu koy jaay PO la ko jaay au nom de Babacar Sène loo 2 c'est la même chose mu jël garde corps Idrissa Seck jox ko ko or que dans ce lotissement dañ ne woon nañ ko def en trois parties une partie pour les entreprises moyennes une partie pour les commerçants une partie pour les entreprises industrielles PV commission bi loolu la décidé gouverneur signé préfet signé léegi loolu ñooñu ñëpp ku ko ci wut da ngaa war a yóbbu dem impôt fay curtis boole ko service de commerce ne ne yaa dem déposé wu ba dans la mairie pour ñu jox la attribution nga dem salaire nga fay sa bornage mais à notre grande surprise lan la def mu jël et cetera et cetera toute la famille Diatara di y une impasse une impasse boo xamante ne ñun ñii ci nekk ci métier boobu di ci liggéey xam nañ ni li mu def ay war la ay saay saay la kenn xamul lu mu def. loolu loolu moi quand je dis que ni quand je dis que ni la que gis nga les menuisiers là les menuisiers là yi zone industrielle les les mécaniciens qui sont qui sont là-bas biñ leen di génne dañ leen seen i borom dañoo soxla terrain yi. c' est pas vrai seeni borom soxlawuñu terre yi parce que joxuñu ko benn entreprise moyenne joxuñu ko benn commerçant joxuñu ko benn benn benn benn entreprise industrielle boo xoolee trois entreprises yi benn bi CTS la entreprise Pren'Nord la sur le nom de Assane Diouf moo ko moom moom il a eu à faire ce sur le nom de Assane Diouf en retour il a vendu ça qui tubaab bi nga xam ne moo ñu nootoon jàpp ni sax suba du ñu bàyyi moo ñu ko daggaloon bàyyi ñu ko foofu ne suba bëgg na kuy def menuiserie dugg foofu kuy defar mécanicien dem foofu kuy defar daal der dem foofu moom mu ñëw ne ñëw ñëpp ñu dem foofu nañ dugg ci koñ yi xeex ak nit ñi tu fais caisse dans chaque quartier ou bien dans chaque couloir da nga gis ay mécanicien xoolal ce rue là xoolal ce de de mécanicien xoolal mbedd ay menuisier nga fi fekk pourquoi parce que fañ ñu waroon a nekk la jàttara jël jaay ko loolu c'est une honte pour sa personne man je dis que en tant qu'adjoint il a eu à faire ça en tant que du premier maire il a eu à faire ça mais s'il devient maire qu'est-ce qu'il va faire un adjoint qui ose faire ça am délégation de signature def loolu mais kooku boo ko joxee maire qu'est-ce qu'il va nous faire qu'est-ce que est-ce que duñu jaay ñun def ñu ay garab implanté ñu fa lañ jëme ñun non xaalis bi xam nga yooyu c'est cinéma la jatara c'est récent. Dottara ne peut pas être nommé en moins de huit mois. Aujourd'hui, il fait appel à la population pour dire qu'il va faire un financement de 500 millions. Mais, mais nous, on est dans le milieu des affaires. Nous, on est dans le milieu des affaires. Nous savons affaires nous Moi, à faire des financements avec les femmes à hauteur de 20 millions. Mais à travers le réseau que je possède, qui a, qui a comme président le comme moo gën a wóor seen président Idriss Seck moo gën a wóor Macky Sall xam nañ ko moo tax ba ci Idi waree dem beneen wet gis na ko ca la gëjee xam luy nguur kon tey loolu muy wax nan da koy jox jigéen ñi dafay naxe te bis buñ ko yàlla defee ñu gañee woon ko ñu xam ne dañuy naxe et puis mayu leen da leen lebal da leen lebal comme toutes les autres leaders qui étaient là auparavant xam ni sëkk ne vous êtes des gens xam ngeen lu xew xam ngeen ni fii gars doon jël seen xaalis di ko lebal femmes bu élection yi jeexee buñ leen gañee ñu demaat ci femmes yi ne leen man et moi je dis que ni c'est une honte pourquoi ana ñi ko def ñëpp dañoo fay ñi ko doon def ñëpp fay nañu Diatara il a retourné comme ça day fay mënul nekk parce que Thiès n'a pas besoin de jatara Thiès n'a pas besoin de Diatara